محمد xam foofu Serigne Bara. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss Serigne Moustapha Matiley xalifa Serigne Bara Serigne Moulay Mbacké xalifa Serigne Balla Thioro Serigne Khadim Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal 16e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci Sisas ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro. تدره لأوليائك معا ليزنوا يا ربنا إن الورى تدره لأوليائك معا ليزنوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجلنا لطفا وأمدا يا أحد يا من جارا لم يكن كفنا بارا محمد لامين محمد لامين بارا بارا كل واي أمنام بارا سخايا بارا محمد لامين محمد لامين بارا بارا كل واي أمنام بارا سخايا بارا محمد لامين محمد لامين بارا محمد لامين ما جارا واي بارا سخايا Mamadou Lamine Mamadou Lamine Bara si Bara yi ngi jub jëfe ngi Bara Sakha yow yaa di gaynde gu baram bari soxo ilaahi maaray Modou Lamine Amadou Lamine Ba yow yaa di gaynde gu baram bari soxo ilaahi maaray Modou Lamine Amadou Lamine Ba yaa di gaynde gu baram bari soxo ilaahi maaray Modou Lamine Amadou Lamine Ba Modou Lamine Ba ke jaraway bari soxo Baba Aminata Madu Lamin Baara Madu Lamin Mbàkke jërëway Mbaari Saxaaya Mbaara yow la nu yaakaar si Mbaara yow la nu yaakaar fee yow la nu yaakaar abadan Mbaari Saxaaya Mbaara yow la nu yaakaar fii yow la nu yaakaar fee yow la nu yaakaar abadan Mbaari Saxaaya Mbaara yow la nu yaakaar fii yow la nu yaakaar fee yow la nu yaakaar abadan Mbaari Saxaaya Aminata la ko ci gis muy Bamba mu taw buy bind doon taa Sëriñ Baara Sëriñ Baara mu baara Mbàkke ma yar yaay doon taaw si mbaara yili malaayika se nit lim juróom ñett len ñoo bokk ñoom aras wuur na si mbaara amadu naa la borom bu yaana mayam ya yaana kooku mooy tey jii réew Serigne Bara ku sopp Serigne Bara Mbacké defal na nu màggal ñaan ma ne sëñ Basiiru day borom xam-xam boo mul ki ñaan ku jàng ba xam jaamu woo ba am sa xol mën naa ki ñaan wala ku jàng jaamu baa ngaa wërsëg liggéey sëñ Bamba sa xol set bi man maa dégg sëñ Bamba sa xol daa leer nañ ma dégg ngay seede sa bopp yi ci baax ci dox ci bëgg sëñ Bara di siiwal ko ngir ñu jariñoo ko loolu nga am bis bi nag yàlla la ma xaasale mi ngi doog am ci réew mi te suñu baarakat moo toll nii te noonu nii daa ñi ñu bari maa ngi ma dama yàlla jéggal aw tàngoor rek laa xamante suñu baara aw tàngoor ku ma sa wax nga ni xëblu ba sax boo ko dee wër doo ko féete kanam ngir tànk leeri suñu baara yi ci suñu bamba ak yitteem jëf ak toolam ga lu mu bëgg yàlla def ko ndaw ñëpp yow la ko xamee da nga bëgg sa maam tey nag da nga koy bu bu taal yi yaatuwul woon ndigal yi bëriwul moo xam ne am ñu am ndigal loolu du bari maa ngi ñaan suñu borom du fan booy wax rek man may may may fees ay wax damay feesal ndax man murit laa bu doxul dara yàlla rek laa ragal sëñ Bamba rek la bëgg di seeti ba fan laa ko jaar maa xam nga ne kenn rek fi ne muy xaadimu rasul lu fi waay yow moo la ko jox koy bu boo xam jërëjëf jërëjëf jërëjëf Pape jërëjëf Sane jërëjëf Pape jërëjëf Ousmane Amara su xol set Alaaji Jabam Mbay jërëjëf jërëjëf aleykum mbokki julli di rawatina mbokki taalibe yi bu ngeen gisee jotaay bu tedd bii danoo jot ndigal ci jàmbaari Cheikhul Khadim muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha góor yàlla yàlla fi yàgg lool ci ànd ak wér Seydi Ahmadul Muxtaar xalifa Cheikh Modou Moustapha yàlla na fi yàgg lool tànn ak wér jëm ci kan Serigne Moustapha Mbacke xalifa Cheikh Mamadou Amine yàlla na fi yàgg lool tànn ak wér ah li xew nag mooy comité pilotage bu Cheikh Mamadou Amine Baara ñoo amaan mbégte jël si waat di leen yëgal bis bi nga xam ne réew mépp moom la ñuy xaar mooy la grande journée culturelle et religieuse de Cheikh Mamadou Lamine Bara coordinateur national bi di kan Cheikh Mamadou Bachir moom sëriñ Xaadi aw ba Gaynde Bara lan la ñu woote journée culturelle Cheikh Mamadou Lamine Bara Serigne Bachir nag di ci rendre hommage mbooleem ñi ngeen gis ñoom ñu ñu bind ci affiche bi insha allahu rabbi kan moo ci war a ñëw Serigne Cheikh Anta Samb dina ci ñëw léegi ci kanam waaye nag bis Serigne Bachir dafa da cee am ñoo xam ne ñooy invité d'honneur bis bi ki ko jiite mooy général Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Cheikh Ahmadou Kara Mbacké doo rëy ni jàmbaari sëñ Bamba ji ak kan ah Cheikh Moustapha moom Cheikh Abdoul Akram jàmbaari Serigne Touba yi ak kan nag Serigne Mahmoudane moom Cheikh Abdoulaye Gaynde ñol la rek ak kan Serigne Sidi Ahmed Sy moom Alaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh ak kan ah Serigne Malik moom Baye Niass di jàmbaare alquran lool ak kan Chérif bu ay dara bu bu mbëngewul ñooñu ñooy invité d'honneur yi waaye balaa maa sori damay jël sama kàddu jox ko Serigne Makhtar Mbow ñi nga xam ne ñoom la ñu duttee bis bi moom la yindi li nga xam ne mooy seen kàddu muy kan jàmbaari islam yi nga xam ne kenn dootu leen fàtte sëñ Bass def ko lu am solo waaye dafa tega lu am solo kan nga tuddee bis bi Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro xam ne l'islam dootu leen fàtte yoonu murit ñooñu suñu xool dana sedd ba wax sax dinañ ñu tënk man ku ma xam guy bi ni nga ma xam bëriwul lu fay xew te yéen moom micro central waa kër Serigne Balla Thior bi samay sëriñ kon soo dee sëriñ Cheikh Mouhamadou man bis bi sama bis la Mbàkke nag ba ma gisee ak ku nekk xam ne di sëriñ Cheikh Thioro ak sëriñ Bara duma ci sori waaye nit moom relation mënut a passé jël doom jël doomi nit nga denc ko def soxna ak ba pare tudde ko doom te loolu lépp sëriñ Bara sama am séq na ko ak sëriñ soxna Ibnu Mbàkke doomi sëriñ Cheikh Thioro am ci sëriñ Amar Fall ak sëriñ Siri Lat ak soxna sëriñ Bara tudde doom mooy Serigne Cheikh Thioro Serigne Cheikh Thioro waajur Serigne Bassirou ak rakam waaye ñëwul foofu ñaari doomi Serigne Cheikh Thioro kenn ku waxoon ni bind leen jurbel ñu bind jurbel mu ni bind leen balla coro ñu ni ko ñu bind balla coro mu ni safaana leen ko jurbel di balla coro balla coro di mu ni loolu la yàlla wax koo koy sëñ balla coro ba bis ba ñaar ñi nga tudde bis bi nag muy sëriñ seex coro ak sëriñ balla coro ku leen woo way leen ndax ku ni sëriñ seex ni coro ku ni sëriñ balla ni coro kon néeg coro maaroo sa bépp ñu ngi leen di woo la ko tàmbalee ci waa kër la seen la ko tàmbalee ci waa kër debbo la ko tàmbalee ci waa kër soxna xëri mbàkke ci njiitu sëriñ moodu maan la ko tàmbalee ci waa kër soxna Kumba ba ci njiitu seex Cheikh Bara Karim imam ba ca guy mbind sa mbokk ñu ngi woon ñëpp bàyyiwuñ kenn kii jël kàddu nag da baax rek waaye kàddu gi yëpp dañ koo tënkoon muy benn ndax sëñ seex Thioro ak sëñ Balla Thioro ñoo bokk lépp waaye da nga ni kër gu nekk na am kàddu moo tax sëñ seex Gaawaan mii jël kàddu doomi sëriñ Mame Mor la moom Serigne Balla Thioro mooy jël kàddoom ci turu waa kër Serigne Balla Thioro su noppee Serigne Moustapha Mbacke mooy jël kàddu moom Serigne Cheikh moom sëriñ Mbàkke moom sëriñ moom sëriñ ma seex moom sëriñ seex coro ñoom ñaar ñëpp nag kenn ku nekk intellectuel nga jàngalekat nga professeur nga ndax dangaa wax léegi lu am solo muy sëriñ seex coro ak sëriñ Balla coro génération bi ñu bari xamuñu ndigalu sëriñ Touba la sëriñ Touba moo ne ko woon Balla mu ne ko Mbàkke mu ne ko na ngeen noppi te jekki te ku fi nekk sëriñ Touba mu yilif leen ni ni ngeen yilife seen yére yi ci loolu la ñuy dox ba nag ni kenn déggu leen ci leen lu ak jaamu yàlla sëriñ seex gaawaan bisimilah. mooy journée bi ren ak daaw ak ren yii ñëwaat amul carte d' d'honneur ku ñëw dugg la amul invitation carte d'honneur amul invitation carte simple amul carte ku ñëw dugg la ku teel a ñëw dugg na leer yóbbaale leen ko yéen presse bi aouzu billahi min asheytaan arrajim salihat wasalaatu wasalaamu ala man buxis rahmatan lil aalamin mbokki jullit yi gannaaw sant suñ borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi jiital ci suñuy nuyoo ak ci suñu kàddu cheikh mohamadinil muntaqa di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fi te may ko wér te mottali ay naalam ci liggéeyal cheikhul xadim di nuyu mbooleem njabootu cheikh Mouhamadul Amin Baara ci njiital cheikh Mouhamadul mustapha Mbakke di nuyu Serigne Mawlaaya Mbakke xalifa Serigne Balla Coro moom it di ko ñaanal suñ borom yu àgg ko fi te may ko wér noonu la nuyoo it Serigne Xaadim xalifa Serigne Cheikh Coro Mbakke moom it di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi te may ko wér gannaaw loolu bi ñu nuyoo njabootu seexul xaddim yi fi teew yépp di nuyu jullit yi fi teew yëpp ak fu ñu mën a bàyyi ko ñi ngi jagleel nag nuyoo ak sant gu particulière ci di ko jëmale ci Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy taxawal bis bi di ko jagleel cant goo xam ne am na fu muy tàmbalee waaye amul fu mu yem moom mi nga xam ne moom moo ñu woo ci bis bu tedd bii di bis boo xam ne yiw rekk la waaye mbaax rekk la ndax kat moom moo ñu woo ci xamlu ak bokk ak xamle ko moom moo ñu woo ci dundal ak mbokk moo ñu woo ci maanaam suuxat ak mbokk ak àndandoo ak nekk benn te yooyu yëpp ndigalul suñ borom la subhanahu wa taala moom waxal na ko boppam wa taqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaami inna allaha aleykum raqiba yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ne taallamu min ansaabikum ma tuwassiluuna bihi arxaamakum na ngeen xam ci seenu mbokk lu ngeen ko mën a jokke kon moom moo ñu woo ci loolu yépp mu ñu ci bennook jullit yi ndax fii gis nañ fi mu ay murit gis nañ fi xeet yi ci tarixa yépp loolu ak benn la benn la ci jullit yi ni ñu ko suñ boroom subhaanahu wa taala wax nañu waxtasimu bi xabli jaay bi xablillahi jamian wala tafarraxu kon sëriñ Bass sa woote bi ndigalul suñ borom la subhaanahu wa taala waaye ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sabab bi nag nga xam ne mooy prétexte bis bi di journée culturelle Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke nga di ko taxawal ci anam bu rafet bu jekk bu taaru waaye nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ay jëfam ak dundam waxuma la journée culturel waaye ay mois culturel manees na ko cee def waaye teewul loolu yëpp yaatal nga ko ba boole ci ñëpp loolu moo tax nga tuddee ko Cheikh Serigne Cheikh Coro Mbacke ak Serigne Balla Coro kon Serigne bi. Serigne Moulay Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Balla Coro nga xam ne ci turam laay wax mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal foo bëgg a àgg yow yaa ko xam waaye yàlla na la fa suñ borom àggale ci barke sa maam ja Seex Muhammadu Lamin Baara Mbacke bu ko defee sëriñ bi ñor gu ko bis bi ñor moo tax mu ngi ciy woo ñëpp di ci woo mbooleem ku mu bokkal sëriñ Balla Coro li ko tàmbalee ci. kër sëriñ Abdourahman Mbacke Mbar nga xam ne mooy taawu sëñ Balla Coro waaye waa kër sëriñ Mbay mbakke Jaaxal waa kër sëriñ Mamor mbakke waa kër Baye sëriñ mbakke waa kër sëñ Masamba Mbacke ak mbooleem njabooti sëñ Balla Coro yépp waaye mboolem taalibe yi mbokk yi xarit yi ak dëkkandoo yi sëriñ bi mu ngi leen ciy woo mu ngi wax ne bis bii na ngeen ko jàppee ne màggalug sëñ Balla Coro Mbacke nu leen màggal gi ñore woon rek na leen bis bi ñore noonu ndax kat sëriñ bas lii mu ñu woo di jël sëriñ Balla Coro sëriñ Cheikh Coro di ko fàttaliku dinaa daanaka 15 jours ay palato ci tele yëpp loolu ñun la ko defal kon nag liñ man mooy yu woow yi ñu woo nañ ko wuy ci anam bu gën a rafet bu anam boo xamante ne nii buñ bu bis bi jàllee dana xam ne lii mu ñu kat ñor nañu fonk nañ ko kon xam naa ne sëriñ Balla Coro ku bari ay mbokk la am na ci mbokk yoo xam ne moog sëñ Cheikh Thioro ñoo ko bokk suma sama mbokk sëñ Moustapha Mbacke bu ñëwee dana gën a yaatal woote bi ci fànn boobu kon maa ngi sant di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Moustapha bisimilah Serigne Moustapha Mbacke. aoudu billahi min ashaytaani ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwaan wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbooloo mu tedd mi teew ci jataay bi maa ngi leen di nuyu nuyoo bi nag maa ngi ciy jiital cheikh mahamadinil muntaqa xalifatul aam li taaifatil muridiya di ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba naal yim naalal Serigne Touba Xaadim Rasuul mu yeggale ko fu kawe njort di nuyu Cheikh Mouhamadul Bachir ci turu Serigne Xaadim Mbàkke xalifa Serigne Cheikh Coro Mbàkke Cheikh Mouhamadul Bachir Serigne Xaadim mi ngi lay yóbbante ay nuyoo ak ñaan di la wax ne bëgg na lool ci cër bii nga cërale maamam sëriñ seex Thioro waaye nag laa xarwa sëñ Bass laa xarwa ndax buñ ne sëtub Cheikh Mouhamadou Lamine moo cërale sëtub sëriñ seex coro ab cër moo cërale sëñ seex coro cër te ab sëtam euh, nekk ci bopp njaboot gi ah loolu de loolu de dañ naan atayta alqawsa baariha delloo nga mbattu ca taatu ndaala waaw waaw ndax Cheikh Mouhamadou Lamine ak Serigne Cheikh Thioro duñ duñ woon ñaari jëmm genn jëmm lañ woon ci jaxasoo ci mbokkoo ci relation bu rafet mbokk yi juñ leen sànq diggante bi ni mu demee woon sëriñ Cheikh Coro yëkkati na doomam soxna Indu jox ko Cheikh Mouhamadou Lamine waaye sëriñ Xaadim mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot gi boo nee sëriñ Xaadim danga naan soxna Bintu ne Cheikh Mouhamadou Lamine kon ñaari kër yi genn kër kese la jaxasoo gi am na amoon na ba noppi waaye nag. sëñ Bas ñëw na gën koo rafetal gën koo taaral kon nag jërëjëf sëriñ Bas jëf ji rëy na sant nañ bu baax a baax mbokk yi seen xol sedd na seen xol sedd gum sedd ci cër bi moo tax ñoom ñëpp takku nañ waaj nañ taxaw nañ temm ngir ànd ak yow bis bi ñoo gi yow ñoo koy ànd minal bidaaya ila nihaaya ñoo koy ànd ba mu jeex kon nag sëriñ xaadim mi ngi woo mbooleem ñi bokkal sëriñ seex Thioro waa kër gi yëpp mu ngi leen di woo mi ngi woo ñi mbokkal sëriñ Cheikh Thioro tàmbalee ko sëriñ Modou Cheikh mi nga xam ne moo doon taawub sëriñ seex Thioro ku woo kër sëriñ Modou Cheikh nag woo nga waa Kaolack gépp woo nga waa Mbàkke Saalum gépp waaye mi ngi woo itam waa kër sëriñ mbakke maam sëriñ mbakke mi nga xam ne moom moo nekk ci bopp njaboot ga mi ngi leen di woo mi ngi woo waa kër sëñ Omar Mbàkke di woo waa kër soxna na di woo waa kër soxna Indu naka noonu itam mi ngi woo bokk yi nga xam ne ñoo bokk ak sëriñ Seex Coro bokki gédé yi tàmbalee ko ca xalifa ba sëriñ bu so ak sëriñ Maamun so di mbokk mu jege ci sëriñ Seex Coro ak sëriñ Balla Coro waaye mi ngi woo itam bunti këri sëriñ Touba yépp lee ko ci kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada di woo bunt kër yi Mamor Anta Sali yëpp tàmbalee ko ci Mamor Jaara ba ci ma Massamba ku ne seex sëñ Cheikh Coro nee nga kër sëñ Touba yëpp ku ne sëñ Cheikh Coro nee nga kër Mamor Anta yëpp kon nag ñi ngi woo mbokk yëpp rawatina rawatina nag taalibe yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi ñi ngi woo taalibe yëpp fu taalibe nekk ci réew mi ak ci bitim réew na waaj takku fas ne teew ci bis bii kon sëñ Bas incha allah le 25 di nga gis waa kër sëñ Cheikh Coro ak waa kër sëñ Balla Coro dañuy wax ne ñoom ay garmi lañ kenn du leen jam naa ni bu sooba yàlla di nga gis buñ ñëwee rek di nga xam ne ñëw nañ jërëjëf sëñ Mamadou Bachir. jërëjëf sëñ Moustapha jërëjëf yow sëñ Cheikh Gaawaan kàddu yi rafet na sëriñ Uway su jërëjëf gis nañ sa teewaay Jamil Saara Seydou wax na ma sa yóbbante yow ak Mouhamed Silla ak Alaaji Jamee lu ma nekk yéen a ngi ci yabal nga Seydou léegi ni ko demal wax sëriñ Basiru ni ko jox naa ko ci bisub sëñ Baara bi ñetti nag yàlla na la yàlla fay loolu noonu la ko Mouhamed defe noonu la ko Alaaji ja defe jërëjëf jërëjëf bés bangoog 16e édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacké samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ci Cissé ku ci bëgg ay leeral jokkool ak coordinateur bi Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba ci 77 635 01 71 77 524 53 27 asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh buuru jullit la ko def bu yaate tey ba ëllëg ñeen na Serigne